envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TapTapSend. Vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous? Effectuez vos transferts maintenant. li nga xamante ni mooy coowal CNG coowal CNG xaw a indi benn polémique bu bëri ñenn ñi naan est-ce que nekkul ministre bi moo moo indi polémique bi yëpp parce que moom moo war na jël ay décision mu nommé ki muy nommé mais boo xoolee fi ñu nii làmb ji dafa am ay dafa am ay waaso ñii jaar fii ñii jaar fële en tant que yow ngay lutteur en activité naka nga jàngatee mbir mi. loolu daal li ma ci waxaat du bëri man biñ ma waxee proposition ne ma na fi Malick Ngom na fi Bira Sène jóge na fi jóge du fi jóge benn question laa posé. néew ma leen damay wooteel ma Bira Sène néew ma leen damay wooteel Malick Ngom mais dama ne leen lan la Bira def bañ bëgg koo taxañ ne ko na fi jóge na fi jóge ñu ne ma dagg yi ma ne ko nañ ko toog waxtaane ko ñu ne ma problème xaw ma 45 ans naang ma ne nañ ko toog waxtaane ko ma leen Bira Sène liggéey na ci làmb ji def na ko bu dee dagg nag ñëpp la ñuy dagg ñu ne ma Gris Bordeaux lan moo tax mu nekk sa président xaw ma lan kii àndoog moom ma leen giir du ma sàkkal fi ma jëm bu dee président euh, lutteur dañ ci ànd ak moom mais Kanta day dem wooteel Malick Ngom guy gi wooteeg Malick Ngom guy gi deful lool loolu laa waxoon te loolu laay waxaat Malick Ngom dégg naa fal nañ ko yàlla yan bi oyof lañ koy carré Sénégal yi yàlla ful ko mu am lu kayo njoxtam yàlla ah aw seelagul a ah, waaw kon kon jeex man daal loolu loolu laa ci wax mais dama ne la fa ma nekkoon ba tey laa nekk kenn mënu maa ji poussé ñu ne ma da ngay forcer da ngay def nangam mais nag ñun ñëpp ñun ba yëpp benn lañ c'est que ça dire que c'est léegi réew mi kenn ku ne bu la nangulee sa position rek dangay am jàmm quoi man loolu rek laa bëgg quoi dañ la nangul sa position quoi fi nga féetee fi nga nekk fii mbër meek meeg promoteur ba yam président CNG kenn ku ne sa intérêt bopp moo la ñor loolu sa intérêt bopp ñoru la te lu ci ëpp intérêt personnel moo ci nekk waaw man nag li may wax dama ko sentir wax sama responsabilité la su ma ko sentir woon li des moom nañ bàyyi kon ministre bi doxal li muy doxal ku fi nekk ñu xam ne koo gën ci réew kii kookoo gën ci CNG ñu ànd ak moom jàppale ko mu liggéey voilà. d'accord solo ma ñëw ci beneen point bi mooy fan yi ku ne gis na ñu ngi jëm ay ay élection ah. ñu gis waa Pastef euh, woote benn cagnotte ñenn ñi ni est-ce que tey ku nekk ci état war naa tourner di di laaj cagnotte pour réew mi. man joxe naa cinquante ah. waaw. àggaleel non bala nga àggale kay dama doon man joxe naa cinquante mille. ndax jàpp nga loolu noonu bokk na ci li defar réew. gis nga 15 dama noonu sax du ma wax ci wax politique mais gis nga boo nekkee ku xam état wala boo nekkee ku xam réew bu lay wax ci réew mi ni ñu ko def ñu fi nekkoon ni ñu ko def yow da ngay tiit ci xeetu sabotage yoo xam ne ay contrat yoo xam ne la bu ñu leen wanee ginnaaw mun naa suuxal réew mi ay xaalis boo xam ne bu ñu ma ne ginnaaw bu ñu lepp mun naa suuxal réew mi. ay contrat yoo xam ne négociation yoo xam ne mun naa suuxal réew mi te lépp xaalis boobu xaalis boobu waroon jeex nii de mi waroon jeex ay deux mille deux mille trente wala deux mille nangam la waroon jeex xaalis boobu jeex na est-ce que dégg fi ma neexee baax léegi nag gis nga gis nga ñii di politique ñii di politique nii muy Diomaye ak Sonko dama bëgg Sénégal déglu mu baax man li may wax. barke Seexu Tijaani bu bu tey bu bu Balla Gaye bu bu bu kii doon woote euh, Waré Sarr doon woote Sonko woote sama carte Waré Sarr laa koy jox neel benn sama carte Waré Sarr laa koy jox mais dama la képp ku bëgg réew mi képp ku bëgg réew mi bu la nee cent franc la laaj war ngaa jël mille franc joxe ko ndax réew mi jugaat suqali ko parce que politique boobu musul am Sénégal xam nga tax politique boobu musul am Sénégal politique yi daan am buñ nee suba la cagnotte bi kenn ku ne programme nañ la benn sandis benn 1000 francs ndox mu sedd ak oto bi lay yóbbu ak tiset te politique sain musul jël responsabilité am jël risque am bàyyi bañ ni tey suba la du trois jours des nga annoncé ne fekk leen ma Dakar Arena kenn ku ne laaj naa la 1000 francs ki laaj naa la 1 million ki laaj naa la 150 ki laaj naa la 1000 francs ki laaj naa la 2000 loolu politicien musu koo def benn bi ci topp politicien musul ne ministres yi seen xaalis dama koy jël kenn du laal ci xaalisu dëkk bi ay waay yaa xayti nag ku bëgg réew mi defaru wala ku bëgg lu baax wallaahi di nga rafetlu lii déggoo li ma la de ku bëgg lu baax ku bëgg réew mi dem di nga rafetlu lii mais nit ki mënoo nekk ci état def fi douze ans wala dix ans projet bi ñuy teg yow mosoo ko teg dund bi ñuy dund mosoo koo dund yow daal ku sës am na xaalis ku sës ci amoo xaalis arrogant réew bew fuuy defe ni sa nguur du jeex nga dem ba sa nguur jeex mu bett la li nga foogoon amul nga tourné waat tey ñii jël seen position boo xam ne kenn mënul wax seen position bi jël muy position boo xam ne position bu pertinente la ci ci doomu aadama ci nit ñi potion boo xam ne ñëpp xam ne potion bi du potion ay kaf ay caaxaan yow nga ne xaaral xale yi nga xam ni porté woon nañ seen seen combat man dañ may déglu xaaral ma génn jaxas seen xel nit ñi seen projet mais ñooñu bu ñu amee xel sax yow est-ce que dañ déglu yow mi toog 12 di def loo xam ne leer na yow ñi gën a suux réew mi ci nga bokk ñi génn même pas trois mois 6 mois gis nga demen la trois ans 4 ans barke alxuraanu karim ñii mënuñu ko defal ci réew mi. mais étape par étape la. te mhm. étape bu ñu jàll xam ni mais dama ni trois ans quatre ans. mënuñu ko defar ci réew mi ci ay xeetu man boo gisee ma am sama responsable di wax. Mhm. ku xam état ku nekkoon ci nguuru kii. déedéet déedéet damay bañ a tudd tur di tooñ parce que man moom nguuram mosuma ko mosuma mosuma tudd bi kooku waa ji waaw. waaw président bi bi fi jógee ñi nekkoon ci nguuram parce que déformation daa gaaw mën naa tudd turam. dégg naa léegi day toog fi mu toog di di la bind ay plainte te loolu lay bañ léegi nag nguur googu fi jógee muusoo c'est xam la li xam li lii lan moo gën a yéemu ci mbir mi tey ñi waroon wax ñi waroon tëj ñi ñi xam ne heure bi war na fekk ci kaso bi ñoom ñoo génn toog di financer di di nit ñi dama la xam noonu lu garaaw mais gis nga Sonko cible bi moom la cible bi du Diomaye yow da dégg kenn ku def plateau di xas Diomaye fan nga gisee monsieur premier ministre boo xam ni tey ëpp ki ñi moo chef de opposition di dal ci kawam mi ngi doog am di kon cible bu Sonko la mais léegi lan moo waral loolu système bi gars yi doon doxee système boobu moo arrangé wul ñi fi nekk système boobu la dindi mais sénégal yi fi ñu waree xam ni ñii nguur gi dañuy liggéey bi ñuy dindi caisse noire commencé dindi caisse noire te nguur dafa neex de. bu ko neexoon léegi bu ñeeri kees noonu da koy yokk mais dani dafa xaram da ko dindi kon kooku kay réew mi réew mi tax muy muy liggéey mais dafa loo xam nii rafetul ci gis-gis ci dégg-dégg nañ leen jàppale ànd ak ñoom jox leen majorité Assemblée national ñu liggéey bis bu leen joxee majorité nag buñ toogee deux ans affaire deful dara bu boobaa kenn ku ne mën nga gis sax comme euh, di opposé wu di xam nga. mais opposition opposition daal man benn benn benn affaire daal la xam ne opposition daal man man métti na ma benn affaire ñi dajaloo ñëpp Anta Babacar Ngom moo waroon bokk ci opposition bi ñi dajaloo xamul tax xale la te mi ngi dugg ci mu ngi doog a dugg ci politique te am nañu ko bëgg te am na ambition te am na ambition te am na fasaxa bu waxee ni ñu koy dégg te bu waxee di xam ne kii nitu nitu ambition la moom waroon fekk ñoo xam ne politiquement politiquement rey nañ leen ci politique mu ànd ak ñoom di dugg ci politique kon réellement ñoom ñëpp la ñuy boole ni ko rey réellement ñoom ñëpp la ñuy réellement ko moom tamit waroon dugg ci yooyu suma suma suma suma suma sœur la nag bu fekkee wax naa ko parce que diffamation daa garaaw mën na ma citer kii nu mu tuddati maa ngi ko doon dégg campagne bi muy campagne naan jomaay boo moytul dañ lay xaw ma cité cité si xaw ma la noo ko waxee noonu te moom daa gaaw ah citation damay bañ mu citation bu Anta yow moom sama sœur nga dama lay conseil ci loolu yow da nga am avenir ci politique bul fekk ñu dajaloo politique rey leen nga dugg seen biir dalay gën a rey nguur gi soo leen mënul jàppale nekkal sa position bopp wax li ngay wax te xam ne yàgg yàgg yàgg réew mi di nga am loo ci doon mais à part li des moom wax dëgg yàlla gisatuma ku may mën a convaincre ci réew mi pour ay wax wala nga confirmer ci réew mi ci ay jëf parce que gisuma ko gisuma ko ci ñoom ayca donc donc mu ngi noonu may am mbégte nag wax dëgg yàlla di jàkkaarloog moom à chaque fois wax rek mën naa ko seede suma grand la bari na ci loo xam ne nii tey moo ko def ci ñun diiran bi ñu nekkee këram ba niñ fa jógee wax dëgg yàlla sànq dama am dama toog fii am benn waay bu romb uh, di jaay ay alxuraan ma dégg alxuraan yi ma xool guy gi ma ne ndeysaan xoolal à chaque fois ñun dañ daan jógee fii dem ba Touba dem fu nekk oto bi doo ci dégg lu dafa dem ba virus boobu noonu dafa nekk ci ñun kër ga ñun buñ mujjaan buñ musaan am combat da nga yaakaar ne sax ay prisonnier lañ amul whatsapp amul dara vingt heures nga tëdd donc éducation boobu mënoon def ci ñun nag tey bu ñu génnee gis ñu ndey gis ñu baay donc éducation boobu nag mooy ñëwaat ci ñun wax dëgg yàlla ñu koy jaajëfal bu baax a baax yow damay toll di ko yow damay gis des fois ngay def émission sax wala nga def bind loo xam ni wax ko ci man te moonte yow laa ci gën a néewal lu ma defal yow xam nga ci dara du toog damay toog fii parce que def googu bu doon tey nit ñu ñooñu taxoon ma koy def euh, que damay metti mais yàlla laa doon jum te am naa ci yàlla mais deret bi dafa am xama nga sang sang deret deret dafa am solo deret bu fekkee sa deret dafa dafa lëndëm yow ci ay lëndëm rek ngay dox mais yow sa deret deret bu baax la loolu nag junj la quoi deret bu baax la yow mënoo changé parce que sa papa jox na ma la sa yaay jox na ma la toog nañ wax nañ sa papa gërëm na la ba génn àdduna sa yaay gërëm na la ba génn àdduna say mag bañ naa ko ba su mosoon ñëw lépp dañ koy bàyyeel kon defe naa ni man su may wax ci yow rek war na wax ci yow mais tamit ku ma warul wax ci yow du wax ci yow mais du wax ci yow loo xam ne waruma ko wax li des mooy li am solo mooy ñu ngi jub ci ci ni ñu koy waxee ci législatif sama mbokk mu bëri laay ñaax ñi nga xam ne tey bëgg nañu réew mi bëgg nañu réew mi jëm ci kanam nañu jub nañu jub xool suñu làmb ji lu ko jëmale kanam lu ko jëmale kanam mooy ki fi nekk tey ñu bëgg ko teg muy président CNG jàppale bi ñu ko mën a jàppale ñu ànd ak moom wala ñu ànd ñun suñu biir jox majorité tey ñii nga xam ne ñoo bëgg a dem ensemble national bu boobaa ñun lu ñu bëgg ñun suñu làmb ji day yomb mais mënuñoo toog tey kenn ku ne nekk fi nga nekk jàppale woo président jàppale woo premier ministre jàppaloo tey ki fi nekk ñu bëgg ko teg président CNG wala nga jàppale yow sa intérêt boobu nga bàyyi bañ fal ko ba pare nga làmb ji ñëw budget war a ñëw lu ñu changé war a ñëw nga bëgg a taxawaat di waxaat te ba jàppale jotee mu am pour mu war a am majorité de assemblée nationale parce lépp fa lay ministre bi tey bu amul majorité assemblée nationale li ñu bëgg def lu bëri duñ ko mën a def léegi ministre bi xam ne ñun ñii nekk nañ ci ginnaawam li mu bëgg defal nañ ko vote yi ñëw nañ voté nañ ko cent pour cent ñu am majorité la axlu làmb taxawoon nañ ko bu ëllëgee bu kaas jotee boo kaasee dina neex a kaas mais doo bàyyee ba def li ngay def làmb ji ñëw nga takk say rajo naan ministre bi nangam te ba jàppale jotee jàppale woo man de personnement suma engagement laa jal sama engagement ci majorité bi waaw ñi nekk sama kii ñi war a woote wax naa leen ko ñi ñu war a sama njaboot wax naa leen sama kër ñi fa war a woote wax naa leen ko majorité wala nga génn kër gi. jamono yu noo bi bi nga demee ut say tiset ak say seulement yëpp ñëw. takk bopp bi yëpp bind ci non <laughs> kër gi ku ku wax guy gi ne la non. <laughs> man se saa man xool man sama position dama ko mës a jël. man sama dama mës a jël sama position man su ku damay xam ni yow la àndal. ku ma àndal yow ku ma àndal yow daal kees li ma la mën daal mooy. li waroon tey tey ndeysaan tey kii bi mooy baara 40 jours bi. waaw 40 jours bi moom saa geste nga def rafet na. parce que lii day war ne yow fàttewoo baara. waaw parce que tamit ñoo fi daan bokk du ñëwandoo kon bu li jotee tey nga ñëw tey jël sama ñu toog di ci waxtaan hmm. duñ ma loolu sant ci yàlla waaw di wax ni daal man daal ba ma xamee daal yàlla benn la hmm. moom laa noppalu hmm. li des moom dama koy bàyyi ci loxo suñu borom li am suba nag xaw ma yàlla moo ko xam waaw su ma waxee ëpp maa ngi jégalu maa ngi nuyaat suma benn grand jibi si la Paris bu baax suma grand suma xarit la jibi si la fàtte ma man du ko fàtte di nuyu waa école Mor Fadam ci mel ni Ngéylu maa ngi koy bu baax a baax baax a baax sama président Pathé Sylla maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax Djili Wade maa ngi koy nuyu bu baax a baax li ma ne wax rek école bi ma faral benn entraîneur mooy sama entraîneur Cheikh Super Jamono maa ngi koy yàlla yàlla defal ko ndam ci combat bi am na combat yàlla mënu ko yàlla ko yàlla def bébé guy gi yàlla jël kalaaf bi li des moom sa waay képp am combat géewaay yàlla may na ndam bu ñu nekkee lim dañuy juum te duñu matal wala ñu juum ñu yaakaar leen nang mais képp ku am combat géewaay yàlla na yàlla defal jàmm su ma liiru jaan maa ngi koy nuyu bu baax di ko saluer bu doon moom Guédiawaye dina xaw a suux parce que tamit dëgg yàlla jéego yu bari mi ngi ko ciy def pour gars yi nekk benn ànd nekk benn di leen wax ne daal sama digganteeg Balla Gaye sama digganteeg Guy gi sama digganteeg Lac de Guiers na ci gars yi teey teey gi mooy soo fekkul ñaar ñuy ànd teyee ci buñ séparé woo man de doo mës a dégg Balla gi Lac de Guiers moo wala ne lañ maa leen di jubale wala ñu toog sama yónneeku ci xam ndax sama nekku ci ba ñu ànd fekk ma leen séparé xaw ma yow bu fekkee da nga cee teyoon da ngay kontaan mais bu dee fekk xol bu bon nga am ak bëggu ñu ànd mooy waral yenn sorties yeeg wala yenn wax yi doo bëgguñu ànd parce que bëggoo lu baax mais ku gis la Gaye taxaw la dëgg taxaw boo nit ko baax sa xol dina sedd man moom loolu laa xam yéene leen jàmm te jàpp nañ jàmm lañ may yéene man moom ku may ànd dama la yéene jàmm te jàpp nañ jàmm nga ma yéene li des moom sa waay dañ koy bàyyi rox suñu borom suñu borom noppi na waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu sama dëkkandoo ñoom mère Mbaye waaw waaw kër sëñ Cheikh Ndigal yi ñoom Adja ñoom Fatou Kene vraiment samay dëkkandoo yu baax lañ ñu sama booy Bolo xam nga ñoom Paulo waa koñ bi bàyyi ma kenn aw ma combat mais chaque jour cër bi day daw ba tey ku ci mel ni Diop xam nga sama soxna bébi xam nga waa Canaba moom bàyyi ma kenn maa ngi nuyu ñëpp di wax ne maa ngi waat suma entraînement maa ngi suma bopp te incha allah naa la jël si ñu dem saal euh, am lu ñu def bu ko dañ xam ne ñun ñii tëdd ñu neloo nuyu nag tamit seex suma médecin maa ngi koy nuyu di nuyu sama coach njiim xam nga njiim le international coach de Sénégal la Pastef va la Pastef va vrai Pastef va est-ce que dégg nga li ma wax le internal coach national le vrai Pastef va mooy coach njiim gàddaay arrêt 30 bi di nuyu soxnaam Amina di nuyu seex sama médecin ñi nekk salle bi ñëpp maa leen nuyu su fekkee daal am na lu ma fàtte maa ngi maa ngi maa ngi ci communication bu fekkee wax naa lu ëpp maa ngi ciy jégalu te xam ne nit matul li des ñu bàyyi ci loxo yàlla li ci kanam loolu bët yàlla yàlla am yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm may ñu taw féex may ñu jumaa mubaarak bu subaa nag massivement massivement nag gars yi dem massivement arena Dakar arena massivement man moom incha allah dinaa dem parce que politique gu moom mais projet bi moo mu ñor waaw kuy nit rek projet bi da lay ñor waaye koo xam ne saa leen moo la ñor yow moom mën ngaa toog. incha allah di ñaanal ñëpp jàmm réussite totale jaajëf. jërëjëf.